mbokk internet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ñu koy baaxee rek di amalee saa su ne ba tey ñu ngi fi nga xamante ni rek boo di euh, festi plage bi nekk ci programme bi ñu invité nag ay ndaanaan yi nga xamante ni euh, kenn dootu leen ko laajte kii ma toogal nag kenn la ci Sénégal nekkoon na fi mais dafa dawoon Ndickou sekk la ñu koy wax euh, di rakk ci Coumba Gawlo Seck Ndickou maa ngi leen nuyu. Lalla maa ngi lay fay. de retour waaye gis nga. <laughs> da ngaa du question daw dañ ne euh, xar xamu bay dawul dafa daani doole loolu rek la woon <laughs> du woon daw. <laughs> ndiku nga nekkoon fii ñu jékki-jékki rek gis nga dem euh, dégg naa xaw ma yaa ngi Allemagne xaw ma ban dëkk am jëkkër am doom lu tax nga daw. bon tu sais euh, dawul bon peut-être xam naa noonu nga koy tuddee. mais li ma la wax sànq rek dañuy dawoon rek pour daw dem daani doole am lu ñu mën a suturloo lu ñu mën a jàppale waajur yi loolu moo taxoon ñu nekk Sénégal benn moment Sénégal man ak sama sœur yi benn moment ñu ne pourquoi pas ñu daw dem Europe dem régler benn affaire xool foofu noonu ndax mu tane musique bi loolu rek la woon mais yaa ma a xam du dara. <laughs> Euh, seen euh, euh, groupe boobu nu mu tuddoon sax. mu ngi tuddoon les Sex Sisters les sœurs quoi sec. parce que ay sœur la ñu woon ñu nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay. quatre ngeen woon non. quatre la woon Yave Anta Khady Koura ak man Ndiku euh, Koura sama yaay ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay yaayam mooy sama grande sœur yaay. Khady moo nekkoon sama grande sœur man maa topp si moom Anta moo nekkoon xam nga moo topp si man. <laughs> mais ana ñooñu léegi fan la ñu nekk parce que yéen ñëpp gisatuñ ci kenn. ñi ngi fi ñi ngi fi Anta mi ngi Toulouse déjà mi ngi France euh, Khady mi ngi. comme ni ma ko waxee euh, euh, comment Valence entre Valence France Koura mi ngi elle est toujours là à mi ngi man maa ngi Allemagne donc euh, groupe bi gis nga affaire jigéen rek moo tax kii nekk fii kii nekk fii <laughs> comme d'habitude voilà yombul. <laughs> ñu gis la fan yi nga ñëwaat def benn clip bu nice jagleel ko wàkk Serigne tubaay yi est-ce que mën nañu xaar tamit aussi nga ñëwaat ànd ak ñoom wala yoon bi yow kese la. bon yoon bi je ne pense pas que mu doon man kese euh, parce que mën na am un jour ñoom itam temps bi ma am nii pour ñëw Sénégal def dara ñoom itam ñu am temps bi ñëw te su boobaa bu ñu dikkee kii du nekk fii kee nekk fee dañuy booloowaat comme niñ ko defee woon liggéey Sénégal yëpp gis que ne les Sex ñëwaat nañ <laughs> voilà. <laughs> ñu toog lu yàgg muy ay ati at gisuñu la nga jékki-jékki ñëw rek euh, def benn single euh, jagleel ko sëriñ bi lan moo tax loolu ak sa xel naka la def ba ñëw ci loolu. waaw loolu moom yëg-yëg la maanaam du nekk luy nit mën a expliquer ndax comme ni may amee habitude di ko wax à chaque fois mooy que ne ñoon ay taalibe Serigne Bamba lañ parce que sama papa ku ko xam yàlla na ko yàlla xare aljana euh, dafa bëggoon Serigne Touba lool ba àdduna bi yëpp xam ko ci moom bañ na ko ba soo masaan tudd sëriñam bi Serigne Moustapha Bassirou yàlla na yàlla ko yokk leeram euh, soo yéexee tuuti mu vraiment mu tur ay xéwal ndax bëgg ku bëggoon ci loolu lañ màgg ñun loolu lañ xam mu xiital ñu ci ba yàlla def ne ñun suñu lépp sëriñ Touba la bi ma waree nag def retour bi nii ñëw Sénégal ma ne pour quoi pas ma defar benn morceau sant ci ku tedd ki ma jël morceau bi nga xam ne sama papa daf ko woyoon yàgg na euh, bindoon ko suma tante woyoon ko mu nekk sama xol bi ma reprendre ko defaat ci ay quelques paroles euh, dolli ci ay kii ba mu gën a kii changé waat euh, comment on dit air bi ak yooyu noonu tëggaat ko mu nekk morceau bu bees bi ma def ni ji sant Serigne Touba ndax moom saa fu ñu toll rek dañ koy sant fu ñu toll walaay sa <laughs> ku xam euh, Laye Bamba Seck sa papa xam taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci njabootam rawatina yéen ñi nga xamante ne yéen lan yàlla nattoo euh, way bi ngeen nekk ci euh, tey boo toogee sa xel dem ci moom lan moo lay gën a manqué ci moom. buy lu bëri di bëri bëri vraiment. dégg naa yaa nekkoon xaritam. bon man xaritam laa woon mais amoon na gënoon nekk xaritam xat yi ki mu kooku rek la bëggoon man dama daan kaas rek léeg-léeg ma ñëw mu ne ma jëlal gas bi nga yóbbu ma ne ko papa mu ne ma xadi petit bassin la quoi attanul gaz bi <laughs> donc man maay ñëw jël gaz bi yóbbu maay jël affaire yi xam nga tellement que daf ko tuddee yaayam nekkoon bëggoon ko trop ndeysaan donte ñëpp la bëggoon sama papa nekkoon na ko nga xamante ne ni njabootam moo ko daan sonal lu mu masana am njabootam la ci la daan daw guddi bëccëg subaa ngoon ba li mu doon souhaité rek di ko ñaan yàlla mooy ay njabootam dund ba nekk naa des bonnes condition loolu moo waral kenn ku ci nekk mu xool ñi war a jàng yóbbu ne la ñu nekk ay intellectuel ñi nga xamante ne nii xam nañ ne vraiment xëy na musique mooy seen cër dugal na leen ci musique bi def ci li nga xamante lépp moo ci war ba tey ji ku nekk fa nga nekk même su fekkente ni nii sax euh, temps bi mayu la ko aussi am na loo man lu mu tuuti tuuti donc ñu koy gën a ñaanal yàlla sunu borom xare ko àjjana vraiment parce que sonn na ci ñun lool vraiment. Mhm. Euh, allahumma min yàlla yàlla nangu ñaan euh, mais Ndickou est-ce que foog ne tey aar bi nu mu xatee gars yi nu ñu nu ñu nu ñu bariwee nga ñëwaat nii est-ce que nga ne mën nga amaat place ba gars yi déglu ah oui bien sûr eh, yàlla mi ngi fi ak Diop aussi liggéey te man loolu laa gëm te du yomb parce que boo gisee musique bi jigéen dafay metti su la ngay jouer instrument amoo temps bu bëri yaa ngi ci njaboot gi kër gi jàppal bàyyi mais du tere temps boo gàtt boo mën di am rek nga jéem a dem job liggéey et puis yàlla boole ak équipe boo xam ne aussi macha allah ay jàmbaar lañ ñoom alga ak ñoom xalil yaa salaam gars yi wax dëgg yàlla 24 sur 24 ñi ngi ñi ngi liggéey ñiy xool ndiku mi naka lañ mën a def vraiment ba mu mën a amaat benn xam nga benn place bi fii nii Sénégal te loolu je pense que warul jafe parce que àdduna moom ku nekk xam na ne ki bëgg maafe day bëgg maafe ki bëgg ceebu jën fii ki bëgg ceebu yàpp yaa ma gën a xam <laughs> xam donc méttiwul daal méttiwul. Euh, tey mënuñu waxtaan ak yow ba noppi te euh, waxuñ ci li nga xamante ne moo di mbirum Coumba Gawlo sekk di sa mag temps yee passé ñu déggoon fi ab euh, tawatam sénégalais yëpp nag naqaru ko àdduna sax laay wax bi nga yëgee feebar bi naka la la dikkee. oui comme tout le monde métti parce que su fekkente ni da nga am ku nga xamante ne ni yàlla suñu borom dafa def muy sagu àdduna laa ko mën a tuddee di suñu te ñun ñi bokk ak moom. macha allah mu mën li muy def di ko def nag si ni mu waree macha allah su fekkee am na lu ko gàllankoor dafay metti mais dañuy jël yëpp delloo ko ci sunu borom ndax yàlla moo ñu sàkk te comme ni ma ko waxee sànq am na ñu nekk situation bu gën a critique bu gën a metti te ba léegi dañuy delloo seen xel ci yàlla donc ñun du ñu mën lu dul di ñaan suñu borom may ko wér may ko taw féex ju yaatoo yaatu ba mu dellusiwaat ci li mu nekkoon. macha allah mi ngi sant yàlla. mën nañ ko xaaraat léegi rek mu ñëw ci. Oh, yàggatul incha allah rabbi <laughs> léegi sama yàlla ni yokk ñaan yi rek incha allah dina baax. du ñu dañoo baaxoo nag saa bu nekk rek bu ñu dalalee nit daal di laal ci actualité bi nga xamante ni jamono ji moo lëmbi réew mi ndi ko gis nga mbënn mi. waaw vraiment gis naa mbënn mi mu nekk lu méttee méttee métti wax dëgg yàlla. Euh, ku ci bokkul nga tëdd salal sax di nelaw su tawee man je pense balaa ngay xalaat dara ñoom nga njëkk xalaat tellement que dara gënul métti nga yor ay xale yu ndaw wala nga nekk mag tollu diggante wala nga nekk mag boo xam ne peut sa jox sa dox sax euh, baaxul noonu nga tëdd fi nga tëdd ndox ñëw sotteeku sa kaw ba pratiquement mm, pour nga jóg fi nga mm. toog sax yombul dara gënul metti loolu xanaa ñuy ñaan yàlla rek sunu borom mi nga xam ne nii moom mooy wàcce ndox bi ak ñi nga xamante ni ñooy autorité yi nga xam ne xëy na yaakaar nañ ne mën nañ ci dara te ñun ci ñoom lañ yaakaar ñu jéem a gën a jàpp daal jàppale gars yi vraiment métti na loolu daal la ñuy ñaan yàlla daal vraiment métti na trop. Dieyna Baldé muy suñu sœur ñu gis ko fan yi problème am ban conseil nga koy jox. man na gis nga yooyu soo ma ci laajee laaj laaj ma sama borom kër man du ma maanaam télé pour ma am temps bu bëri sax pour xam lan moo xew sama barke Sëñ Tuubaa sama jëkkër laay woo su ma xëyee chaque matin lan moo xew surtout gérant billahi barke Sëñ Tuubaa lan moo xew Sénégal fan la kii bi toll euh, virus bi fan la toll tellement que sama temps bëri vraiment mënu ma la si wax dara baak sëñ Tuubaa. <laughs> doo déglu li xew ci réew non dinaa déglu sax mais pas tellement tellement que damay toll benn moment dinaa dal am temps déglu am tuuti information mais comme jamono ji ma toll yaa ngi gis maa ngi ci ay tournage clip maa ngi ci ay ay def promotion yo bare yor bébé bu am un naa et demi tout le temps sama temps dafay damay xëy tey par exemple 6 heures du matin laa yow ba léegi maa ngi demaguma sama kër pratiquement oto bi sax léeg nga taal tuuti rajo déglu tuuti mais. man de loo ma lu ma la ci wax rek wax lu ma wóorul ak <laughs> euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi wax ñu tamit aussi projet yi lan la lan nga indi Sénégal lan ngay pare pour dem. waaw euh, maa ngi Sénégal comme ni ma ko waxee nekk nii toll ci phase def sama promotion euh, single bi génn di waajal màggal bi et après comme ni ma ko waxee damay def benn kii bu ndaw ndaw dem am ay qu'est-ce que festival yoo xam dañ ko war a def ci mois d'octobre bi. suñu loolu weesoo nag su ma dellu siwaatee maa ngi programme def ay live def ay quelques spectacles nit ñi gis ne ndikku ñëw na ak yu mel noonu daal vraiment. ñu ngi lay jaajëf. maa ngi nuyu ñëpp di leen euh, sargal di kontaan trop seen invitation vraiment merci. Aïcha merci beaucoup léegi euh, ba tey dañuy daal di dugg ci biir rek xool li nga xam ne ñan ñan ñoo fi nekk lan la ñuy waajal lan la ñuy pare euh, lu mu ci mënti doon rek ñu daal di ko ànd ak yéen file ci Dakar Buzz dara du umpe jërë ngeen jëf.